ah c'est clair. alors ci loolu euh, ñu ngi xamal ni léegi nii jot nañoo teg loxo ki nga xamante ni euh, ñaari euh, nit la yu bokk ci yéen waa Pastef di Vito ak Diop Taïf. teg nañ leen loxo ci lan je ne comprends pas. ci foofee ca tribunal de grande instance. waaw voilà bon ils ont l'habitude ils ont l'habitude di teg loxo ay nit ci lu nga xam ni véritablement dafa war a nekk lu normal ku nekk ñëw. seetaan wala ku nekk ñëw taxaw xool parce que y a la liberté de circuler. bon bu mbir amee war nañu mën a ñëw taxaw xool lu ñuy def euh, wala apporter seen soutien mais nan lañ euh, man maa ngi yaa ngi yow yaa ma ko soogaa yëgal mm. mais ils ont l'habitude ils ont l'habitude di teg loxo di bàyyi di intimider mais ça ne passera pas mm. c'est sûr ah, xam nga aussi euh, bañuñ tribunal am nit ñi mais soo yemee ci seetaan yaakaar naa ne dara du ci fekk parce que man yàgg naa di tribunal di seetaan autant bu ñu nekk opposition que bu ñu nekk au pouvoir man yaakaar naa ne bokk na ci ñuy gën a fréquenter les procès parce que ça ça m'intéresse euh, parce que daa bokk ci sama vie donc euh, soo demee toog seetaan pare nga ñibbi yaakaar naa ne mais soo fa dee nag di indi attroupement di saaga di wax naka su noonu comme seen habitude boobu aussi les forces de l'ordre sont là pour réglementer la vie et lui donner un sens mm-hmm. yaakaar naa ne loolu daal euh, c'est ça en réalité. alors ci loolu xam naa certainement ci kanam tuuti bu ñu jotee suñu ndaw yi nga xamante ne ñoom ñu fa nekkal euh, muy euh, Waly ak ki nga xamante ne également moo di Missane dinañ leen jël léegi après téléphone ñu wax ñu moo fa xew certainement ñu ñëw ak ñun. Mm-hmm. ci lu waral ñu daal leen teg loxo ñoom ñi di Vito ak ki nga xamante ne moo di Diop Taïf Diop Taïf nag ma recevoir naa ko fii il y a pas très longtemps. Mm-hmm. Euh, dinañu xam daal ani lan moo waral seen arrestation mais pour rappel grand euh, le en février 2021 ci la ki nga xamante ni moo di la masseuse Adji Raby Sarr déposé woon ak plainte ci kaw ki nga xamante ni moom mooy sa leader euh, tuumal ko wàllub viol mais également wàllub xoqatal li jëm ci wàllub dundam ci loolu depuis lors ça traîne mais gis nañ ni ak juge bi di ma xam jàlloo bu mu ñëwee dafa mel ni mbir yi dañ ko bëgg a accélérer sa gis-gis par rapport ak lu ni mel bon ça a traîné parce qu'il s'agit là d'un complot